dara laa ko dul may bu tàyyiwul duma tàyyi fii mu ngi génn ci pale bi fii maa ngi taxaw fii amul kenn ko xam ne mun nga fexe ba ma kii la bi duma dina mel ne policier buy dem di ñëw eh Marème ça va nga jëm. namoon naa la yow laa loo may nam nga may nam la nam naa la si xumaag yow ay namante damay lay laaj ndax Karim dina bokk war a Karim du bokk. léegi li ma la waxoon def naa ko waxtaan naa ak Macky te promettre na ma ni lépp lu ci war dina ko ci def ndax ñi nga xamante ni ñoom la si war a àndal waxtaan dina ànd ak ñoom waxtaan bu ànd ak ñoom waxtaan nag après dina baax. loolu doyuma loolu doyuma di di loolu doyuma. man li ma doy mooy mu taxaw wax ni Karim dina bokk waxa Karim du bokk ay waxtaan na waxutaan nu ma loolu taxul ma jóg Marème du ma la may dara. foo jaar ma taxaw fa. tata je te respecte beaucoup. man tamit. te comme jigéen nga. di yaay man tam may jigéen di yaay moo tax ma ciy sonn du ci dox mais xam nga ne lii ngay def nii tegoo ko fenn. lu tax bu doon keneen la teg naa ko ci yoon. lu tax. da sama tata. nekk première dame ba léegi si bu Sénégal comme ni ma ko nekkee. kon xaajal ma ma toog tax la respect. oui. waa dangaa toog jóg ma toog. waa kon lan la problème bi may ma toog ñu liggéey li ñu war a liggéey. kon may leen Karim mu dugg toog moom tamit liggéey li mu war a liggéey. Karim day dugg war a du dugg. ñi ngi seet ndax war naa dugg wala war. ah ci seet ngeen toll. man nag tollu ma ci seet xam nga ci la laa toll. ndax day am war a du am. man kenn mënu ma téye Marème doo dem doxe sa soxla Karim war a ñëw ci dëkk bi dox soxlam ngeen aye ko ko may dara fi jaar. damaa bëgg nga may ma nag ndax fi mu nekk nii damaa def sama xartum bu baax fëlaale war a dem marché. xaw ma fëlali di <laughs> nga ko bëggee du yombee noonu laa wax du yombee noonu. du yombee noonu. maaleykum salaam. oui Adja Khouj jëlil la. waaw Viviane. oui damaa bëggoon ñu waxtaan. ci lan ak yow. Alaaji moo ma yónni ñetti fan yi yàlla nga ni fii di histoire bàyyil coow li. du ma ko bàyyi du ko may dara ñoom góor ñi dinañ ko réglé ak seen façon moo gën ñetti fan yàlla taloo lekk taloo naan nga ni fii di histoire te xam nga ni kii. Adja Khouj may ma bul ma yàqal sama liggéey. neel ma dikkee mu géré góor ñi man ma ma ma foofu laa mun a yem bayiwuma ñetti fan yàlla nekk di bayiwuma laa wax bayiw non de yow lan la xanaa da bëgg a dem ci parti APR qu'est-ce qu'il y a lan la lan la maa sama bopp dama ne du ma la may dara laa wax fii doo fi jugee Karim day dugg wara du dugg Karim daal ñu ngi xool ne ma dikki damay xuloo eh yow lan la ku la woo demal a de xuja demal sa yoon damay régler suma problème Karim maa ko jox joxoo ko. kii boo ngeen mënee ci moom dara ngeen wax ak moom. moom mënoon ci man dara. yow mënoon ci man dara. li ma la bëgg la Karim day tugg wala du tugg. Karim daal bu mënee na ñëw dugal boppam. ah loolu foofu nga toll. foofu laa tol ndax damaa sonn ci wax ji wax naa ak Mati. yow doo génn mën mi may temps li nga xamante ni moo war ñu def ko. dama ne mayuma ko temps fii nga koy mu ne day dugg. pourquoi du dugg Karim dina pourquoi du bokk. ma ne comme ma yoo loo ci bañul bañul yaa toll ci kon yees damay fëlaale ba doo fi jaar lay wax Karim day dugg wara du dugg yow lay waxal Karim du dugg tege sa boo sonnee wul bul ma waxati tubaab du ma tubaab li ngay lekk loolu lay lekk du ma tubaab dama ne ah, ah! Sénégal waxu leen. <laughs> nañ dem marché ndugg man dama demul marché fii doo fi génn. Karim day dugg wara du day bokk wara du bokk. mu nekk ba loo ci bañul bañu ma ko ci fii doo fi jaar fii doo fi jaar doo génn doo dem dama Karim day dugg wara du dugg dafa wax lu leer. man maa la gën a waaru. kenn du ci wax dama doo jaar fii. Karim day bokk wara du mu ne koo lijjanti. mënoo ko lijjanti di nga ko lijjanti taxawal xanaa do jongoma. Karim day bokk war Karim day bokk war da nga ci xeex bi man sonnuma ci xeex bi ngay wax taxaw wax nga woo sa borom kër mu wax ndax Karim day bokk waxa du bokk sama borom kër li mu wax leer na il a été clair da ngay bàyyi yoon def liggéeyam bi nga wax a jaar doo fi jaar bu fekkee Karim Karim day dugg waxa du dugg leeru ma leeru la soxna si doo dem fii doo fi taa doo dem xam nga bu ma neexoon chaque jour ma génn. dama ne génneel gàmm. waaye moo tax chaque jour maa génn sama bopp. wante garde yi du baax. parce boo woowee garde yi ma woo samay garde man tamit yow rek amoo ay garde. tata s'il bul ma la bul ma la déglu ma déglu ma léegi tata léegi xam lu ma bëgg ñu waxtaan. waxtaanuma léegi man waxtaan naa ba pare m'a promis quelque chose léegi xam nga lu ma bëgg dama lay defaral nii. bul ma neexal dama ni wol ma lu ma la def sama yoon nekkul ci loolu gënoo ma rëy la miin Karim day dugg wax a du dugg wóoru la dina la wóor tey doo fi jom yow lay waxal doo fi dem xaaral ma jàngal la filaale li suxali li doo fi dem <laughs> kay ñu dama ne di nga di xeex tey di nga xeex kay ñu xeex dama ne di nga xeex laa wax di nga xeex ak man Karim day dugg wala du dugg xam nga tolloo woon ni bi ngay ñëw 2012 di nga xeex wala doo xeex di xeex wala doo xeex di nga xeex di nga xeex wala doo di nga yow il faut yow ma pat man ngay pat di xeex war doo xeex man ngay daane suma weer di nga xeex war a doo xeex tata di nga nekk nekk du ma nekk ah? dina dugg war a du yaa ngi mu ngi may boof mu ngi may boof mu ngi waroon naa la dóor dina bokk war a Karim dina bokk waxa du bokk. du bokk. Karim dina bokk waxa du bokk. Karim wóoruma. Karim dina dugg wala du dugg. wóoruma wóoruma. dina dugg wala du dugg. dangaa sol tey ba xaw ma loo sol nii. Karim dina dugg wala du dugg. Karim dina dugg wala du dugg. Karim dina dugg wala. Karim dina dugg wala du dugg. Karim dina dugg wala du dugg. Karim dina dugg wala du dugg. di nga ñibbi France. Karim di nga ñibbi France. bàyyi ma ma togg samay jox yi nag samay maxal. di nga ñibbi Karim dina dugg war di nga ñibbi laa lay laaj. dina ñibbi France dina dugg war a tudd. ñibbi ñibbi. Karim dina dugg war a tudd. di nga ñibbi di nga ñibbi ah di nga ñibbi di nga ñibbi seet gi paa bi topp ko. Karim dina dugg war a tudd.